asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ajuma jot lu ko dalee 18h jàpp 19h di waxtaan ak yéen ci seen émission SOS santé amaat mbégte di àndaat ak yéen ni ki tey jilee di leen wax rek déwénati di baalu ak ñëpp tey nag ci seen émission SOS santé ñuy dalal ki nga xamante ni moom mooy Xewe Mbaye donc euh, mu nekk nag koo xamante ne moom moo jiite association Prune Belly Sénégal nekk ab association. association boo xam ne nag dafay euh, toppatoo tout tànk yi nga xam ne kon dañoo amee feebar boobu dañuy daal di nuyu sunu invité Xewe mbay bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu madame Mbaye asalaamaaleykum Ouleye Matou maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs mi FM yëpp. Mm. di la jaajëfal. parce mm. que je crois que bii mooy sama deuxième passage mi FM. exactement. Mm-hmm. waa kay salaamaaleykum. di la jaajëfal également comme ni nga ko waxee bii mooy sa deuxième passage euh, sa premier passage mu nekkoon passage bu am solo euh, ñu defoon émission boo xamante ne amoon na solo bu baax a baax ndax tax na nit ñi bëri daal di xam li nga xam ne moom mooy Prune Belly ñi ko xamuloon bari na euh, tey jii nii madame Mbaye. Euh, li ñu naan fàttali moom yàqul dara euh, la mhm. répétition est péda pédagogique te mhm. tey xëy na ñi nga xamante ne déglu woon nañu émission boobu euh, bokkul ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo koy déglu am na ñu ci dolleeku donc tey baax na nga ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy prune belly surtout que des na ab feebar boo xam ne ba léegi des na ci askan wi ñu bëri ñoo xam ne mosuñu koo dégg. waa Ouleye Matou c'est vrai que la répétition est pédagogique. Mhm. te ci genre feebar yi baax na ngay fàttali. parce que ba tey des na ni na ñoo xamante ni xamuñu lan mooy prune belly. Mhm. su ma bamtuwaatee prune benn feebar la boo xamante ni dafay dal xale yu góor yu ndaw yi ça veut que bébé yu góor yi ñoom lay dal. Mhm. bi ñu xaymaa euh, ñi nga xamante ni ñoo ciy jigéen ñu néew lañu segam am nañu sax. Euh, prune belly dafa nekk feebar ba nga xamante ni bu jigéen bi wanee lor. balaa même muy imbi dinañu xam ci biir biiram ñi dafa am prune belly prune belly hmm. nekk feebar boo xamante ni xale bi bu juddoo euh, testicules yi duñu nekk ci seen place day hmm. laqatu ci biir bi dafay am vessie boo xamante ni vessie bu mag la hmm. dafay am aussi euh, dilatation ça veut dire que organes yi ci biir bi yëpp maanaam rein yeeg xëtër yeeg ñoom seen yooyu yëpp ak uretère yi dañuy am taay boo xamante ni taay bu normalul la. Mm-hmm. bi ci des moom mooy bu ñu juddoo seen biir bi du am ay muscle. Mm-hmm. xaw ma muscle naka lañ koy waxee ci wolof. Mm-hmm. mais en tout cas nit ku normal bébé bu normal bu juddoo bu ñu bu après der bi day am graisse. après der après graisse bi muscle yi ñooy ñëw. après muscle yi da ngay gis butit yi. mais xale bu am prune belly buñ juddoo rek buñ ko xoolee après der bi. butit yi ngay gis ñoom ñoo ciy nekk ak yeneen malformation yoo xamante ni soit des fois tànk yi lay jàpp mhm. wala mu jàpp xol bi wala mu créer leen yeneen jafe-jafe yoo xamante ni dañuy wéy moom seen giiru dund mhm. loolu mooy prune belly mhm. mu nekk nag tour boo xam ne euh, belly defe naa mooy biir euh, prune nekk ab xeetu fruit donc euh, tey pourquoi lëkkale boobu lëkkale bi moom mooy ñoom bi ñu xamante ni ñu ngi découvrier maladie bi aux États-Unis mhm. dañuy xool ne xale bi bu juddoo rek da ngay gis biir bi day fees dell ak ndox mhm. parce que xale bu nekkee ci biiru yaayam bu yaayam lekkee mu lekk bu yaayam tuure ndox mu tuur ndox mhm. mais euh, ci biiru yaayam biir bi day fees dell parce que moom tuur ndox boobu da koy jafe ndax li ko war a permettre mu tuur ndox ci biir biiru yaayam dafa dafa am jafe-jafe Mm-hmm. de telle sorte que bu juddoo rek da ngay gis bi day biir bi day rëy mel ni ballon. Mm-hmm. léegi taille euh, comme que biiru nit rongwul. Mm-hmm. dafa xaw a ovale. léegi bu ñu xasee ba dindi ndox moomu ci biir bi rek da ngay gis biir bi day def mbëpp. su ko defee day def ay pli. Euh, newi newi bi dafay rees bu defee ay pli dafay nurook prune boo xamante ni dafa lax. looloo tax ñi ko découvrir seen xel ci loolu la njëkk a dem. Mm-hmm. mais ñun français yi dañuy wax ventre de batracien biiru mbott. Mm-hmm. waa kay noonu lañ ko tuddee. Mm-hmm. parce que seen biir yi forme biiru mbott lay lay lay nekk. d'accord. Uh-huh. waa kay moo tax prune de li mu nekk feebar bu metti quand même ci tout tànk yi yaa ngi wax sànq góor ñi lay lay faral di dal. wax nga ko léegi euh, est-ce que scientifiquement peut-être am na explication boo xam ne peut-être am na ci loolu. feebar bi déjà amul benn explication. parce que mhm. découvrir guñu ba tey lan moo koy joxe. Mhm. man de en tout cas ci sama xam-xam bu gàtt. Mhm. parce que maa ngi jiite maa ngi fàttali ni maa ngi jiite association bu tudd Prune Belly. dajale mbootaayu jigéen ñi nga xam ne ñëpp seen doom dafa am Prune Belly. ak ñi nga xam ni seen doom daf ko amoon génn àdduna. ak ñi nga xam ni seen doom amu ko waaye méttitu xol bi ñu am ci xale yi moo tax ñu ñëw bokk ci association bi. Mhm. mais bi ma xoolee ci jigéen ñi nga xam ne ñëpp seen doom am na prune belly bi ma leen laajee siburu woon nañu bu ñu bi ñu ëmbee. Mhm. te man mii bi ma bi ma ëmbee damaa siburu woon. Mhm. man da sama xam-xam bu gàtt loolu laa yaakaar ni moom la mais sincèrement scientifiquement médecin yi xamaguñu ba tey lan mooy joxe prune belly. bu ma ñëwee ci sa laaj. lii expliqué ni jigéen ñi rek lay daal aussi xamaguñ ko. en tout cas médecin bi traité fii xale yi muy docteur ga professeur Gabriel Ngom je le salue au passage. Mhm. nee na moom ci cursusam yëpp benn prune belli la ci mës a gis. Mm, mhm. voilà bi mu nekkee médecin di traité ay prune belli ba tey benn la ci mës a gis. am na benn association bu ma lëkkalool euh, États-Unis am nañu dix huit cas de prune belli yoo xam ne ay jigéen lañu. mais mhm. fii ci Sénégal ak Afrique moom sincèrement. benn cas boobu la ci professeur Gabriel Ngom Guissane. daal di am. Mm. Mhm. Euh, tey boo euh, yaa ngi jiite association donc euh, di ngeen am ay xayma yoo xam ne dangeen koy am peut-être ci déjà yéen seen seen au niveau de votre association ñaata xale ngeen fa xayma ñu am feebar bi. en tout cas man bu may commencer jiite association bi amoon na soixante enfants. Mm -hmm. mais yàlla def na ñu ngi wàññeeku di ñu ngi wàññeeku ñu ngi wàññeeku ba. bu ma defee statistiques yi def sama liste euh, xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci association bi am naa trente xale. Mm-hmm. j'ai trente euh, malades yoo xamante ni association bi mu ngi leen di suivre. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne tamit ñu ngi leen làq ci kër yi ñun xamuñu ko mais nanguwuñu waxee. Mm-hmm. parce que dafa nekk maladie bu doy waar. buñ nee sa doom daf ko am rek dañ lay stigmatiser. dañu naan doomu rab nga am de telle sorte que maman yi ñemewuñu sax. wax ni crime ba ni doom am mhm. dañ leen di làkk di leen yóbbu ci maaman yi di leen di xooyalal ay ay xas ay garab di leen ko jox te loolu daf leen di gën a gaañ loolu daf leen di gën a gaañ mhm. parce que déjà xale boo xamante ni biiram dafa fragile ak ñu xam ni garabu wala fi ni ñu korsee da mhm. jox ko ko loolu moo leen di gën a lor donc euh, ci xayma boobu laa toll am naa trente enfants yoo xamante ni maa ngi leen di gérer bon je peux je dirais vingt neuf parce que kenn wàññeeku na ci y a deux mois de cela mm, uh-huh. euh, xale bi bi dëkkoon sama primbeli bi nekkoon Louga dafa wàññeeku parce que Covid bi moo taxoon mënul déplacé wu mënul mm-hmm. gis médecin bi mm-hmm. yàlla def li Mmh. Mmh. voilà euh, dinañ ñëwaat ci aspect euh, maladie bi ci kanam mais pour ñëw un ci beneen aspect wax nga ko léegi ci sa wax Covid bi donc yéen association bi nga xam ne yéen a ngi boole ay parents yoo xam ne dañu am doom yu amee Prune Belly déposé woon ngeen ab bataaxal ci mm-hmm. taabalu njiitu réew mi ndax jafe-jafe yi métti yi nga xam ne yéen a ngi koy jànkonteel ci waxtu wi ndax feebar bii di Covid loolu fan la tollu déjà lettre boobu mais également processus bi naka la demee. waaw parce que bi ñu demee ba nga xamante ni. Euh, Covid bi dugg si na. xale yi euh, mënatuñoo dem ci hôpitaux yi parce que ñoom fi ñu leen di faje mooy Albert Royer ak hôpital Diamniadio mm-hmm. parce que spécialiste yi nga xamante ni ñoom ñooy saafonteeg Prune Belly foofu lañ nekk. Mm-hmm. te booy seet maladi yi nekk ñu ñoom ñëpp Dakar quelque malades laa fi am Dakar. am naa malade yoo xamante ni la plupart Thiès la ñu nekk ñii ñu ngi Louga ñii ñu ngi Kaolack ñii ñu ngi mbuur am mhm. naa ñetti malade yoo xamante ni ñu ngi Ziguinchor am na kenn ku ci wàññeeku ci ñoom. Mhm. de telle sorte que bi ñu waxee ni kenn dootul tukki rek dañoo toog ci kër yi mënatuñu jot seen médecin yi parce que médecin yi tamit euh, jàpp nañu jàpp ga nga xamante ni ci Covid bi boo leen woowee duñu jël. Mhm. de telle sorte que xale yi ñu ngi développer infection urinaire ci kër yi xamuñu fu ñuy jaar. dañuy dem ci centre de santé de proximité yi wala poste de santé yi surtout pour ñu nekk ci village yi. Mhm. te euh, je dis que poste de santé yi ak centre de santé yi ñu bëri xamuñu prune belly. te et puis amuñu matuwaay peut-être pour mën leen faj. amuñu matuwaay yi mais dañ ko xamul. Mhm. parce que pour la petite histoire. Mhm. dem naa fi rencontrer benn conseiller euh, en santé ministre de la santé. kooku mhm. xamul woon prune belly man maa toog ma expliquer ko faram fàcceel ko ko tam médecin la hmm? de telle sorte que ñi ci poste de santé yi mënuñu xam prune belly mhm. xamuñu ko parce que familier wuñu ak prune belly mhm. comprendre nga ñu ci bëri jànguñu ko ci seen kër jànkontewuñu ak moom dé déedéet de telle sorte que bataaxal bi ñu yónnee président dama ko ci euh, expliquer situation bi am que xale yi ñu ngi ci région yi mu ñu dépassé déplacé wu nañu jéem a fexe ñiy jàng médecine ñu fexe dugal ci maladie rare yi comme ça ñu xam nan la ñuy gérer ñu am prise en charge de proximité. Mhm. loolu laa ko njëkk a wax. bi ma delloo ci bataaxal bi ma ni ko ndimbal yi ñuy jox nit ñi. Mhm. ceeb dawlin ak ñoom seen. gisuma ci benn yoon foo xamante ni dañoo jël en charge les enfants de zéro à cinq ans. Mhm. parce que ceeb vraiment xale bu am zéro à cinq ans du lu muy dundee. du lu muy consommer. Mm. du lu muy mm. bi ci des ma fàttaliku ni ko ñun prune belly yi ñu am ñun maman yi am prune belly yi dañu doon wut ay ndimbal pour opérer suñuy doom xaar ñu benn yoon ministère de la santé moo tax ñu créer association. Mm-hmm. mais jamono ji metti na ci ñëpp nga xamante ni jotatuñu benn ndimbal. Mm-hmm. yàlla da daan def présidence chaque année daf ñu daan may ndimbal. Mm-hmm. waaye cette année. vraiment amuñu benn ndimbal de la présidence. Mhm. loolu yëpp laa ko faram fàcceel ci bataaxal bi doon xaar nag tontoom. con mhm. con euh, comment dirais-je euh, jël naa les attaches du ministre cabinet directeur de cabinet jël naa les attaches de beaucoup de personnes de la présidence. et de notre médecin traitant bi nga xamante ni mooy conseiller en santé Macky Sall muy professeur Ba. Mhm. jot naa ko téléphone. nee na def na lu muy war a def yëpp dossier bi mu ngi ci bureau président dafay xaar président réagir. Mmh. président réagirul ba tey nag hmm. bon. xaw na métti ci ñun est-ce que aussi euh, waa fondation Servir le Sénégal notamment première dame ak yooyu. fondation Servir le Sénégal bi mooy troisième lettre bu ñu fay déposé. Hmm. mais ba tey amuñu suite. su ñu demee di déposé d'ailleurs duñu am sax accès ci biir dañu hmm. naan rek pour la petite histoire am na benn genre boîte aux nañ ko fa sànni. Mhm. buñ ko fa sànnee bon xam naa lettres yi muy recevoir dafa bëri de telle sorte que du ñu xam sax exactement lettres yi am importance ak lettres yi nga xamante ni c'est juste pour demander de l'aide. Mhm. ba tey fondation service le Sénégal tontu wuñu ñu. j'ai appelé plusieurs fois nag ci seen numéro de téléphone fixe. Mhm. pour demander à parler à la présidente de la fondation. à parler à l'assistante de la présidente mais ba tey. wax dëgg yàlla amoo ci benn tontu. aw ma ci benn tontu jaar naa fu nekk mais terewul ba tey ñu ngi góorgóorlu rek. parce que mhm. xale yi sincèrement sonn nañu te duñ leen bàyyi ñu dee. déjà mhm. am naa ci benn xale boo xamante ni euh, infection bi mu def daf ko indil insuffisance rénale. Mhm. jooy naa ci démb ba sonn mu ngi biir hôpital Dantec ñu ngi ko commencé dialyser pour xale boo xamante ni 9 ans kese la am. donc feebar bi mën na dem ba conduire ci genre euh, maladie yooyu. loolu rek mooy sama ñàkk a nelaw parce que ñoom ñëpp booy seet seen finalité insuffisance rénale la parce que man sama doom daf ko am mais benn rein moo moo mooy euh, ñaari rein yëpp benn rein bu ndaw la. Mhm. bi ci des rein bi dafa dilaté wu de telle sorte que ñaari rein yi bu nekk day dimbali moroomam ci sa giiru dund. de telle mhm. sorte que dañuy dem ba seen rein yi dañuy fatigué. et gën ca garaaw nag mooy bu ñu defee infection urinaire parce que infection urinaire moom mooy yàq seen rein yi infection urinaire moom moo leen di moom moo leen di indil jafe-jafe. Hmm. xale bi mu ngi hôpital Dantec depuis démb maa ngi jokkoo ak yaayam parce que CTO lañ ko njëkkoon a yóbbu pour dire que rek am na hôpitaux yoo xamante ni mënuñu ko jël en charge. dañ ko yóbbu woon CTO parce que fa la tàmm di ko yóbbu parce que moo gën a jege këram. Hmm. mais ba mu demee ba ñàng CTO daf ko dugal ci ambulance référé ko hôpital Dantec mi ngi foofu ñu ñu téye ñu ne dafa def insuffisance rénale tey lay commencé dialyse xam nga ni loolu doy na waar. ci xale bu ndaw metti na. ci xale bu ndaw loolu doy na waar. Mhm. Mhm. mais mais tey jii nii li nga xam ne moom mooy euh, ñi amee prune belly est-ce que am na ay bu weesoo opération yeeg yooyu déjà ay garab yoo xam ne par exemple dina leen euh, mën a jàppale ci peut-être douleur yi ñuy ressentir ak yooyu. et est-ce aussi garab yooyu disponible na. infection urinaire la ñuy def ñoom ñëpp. Mm-hmm. parce que su ma rappelé dama ne ñoom dañoo am méga vessie. Mm-hmm. mooy vessie bu mag. Mm-hmm. vessie bi day nekk vessie bu norm bu normalul boo xam ne ëpp na vessie mag. donc mën nañu toog toute la journée du ñu dem tuur ndox du ñu sax safa saw dem tuur ndox. de telle sorte que tuur ndox boobu day nëpp ci biir bi commencé remonter jaaraat ci canaux yi nga xamante ni ñoom ñooy dem ci rein bi. de telle sorte que day yàq rein bi complètement déjà am naa ci benn xale mbuur la dëkk benn rein lay fonctionner parce que benn rein bi yàqu na ba ñu dindi ko. Mhm. daaw lañ ko dindi. Hmm. comprendre ga à mhm. part ça infection urinaire boobu bu ñu ko defee foog nga jëndal leen ay antibiotiques garab yu cher. Mhm. garabu antibiotiques yi xale yi di utiliser bu ñu defee infection urinaire. boîte bi ci gën ndaw dix mille francs lay jar. te du benn boîte mooy doy parce que traitement la boo xamante ni traitement de choc la pour que euh, bactérie bi mën a mën a mën a dem. mën a dem ay Escherichia coli ñoom seen yooyu ñoo leen di affecté yow des fois mën nga traité Escherichia coli muy benn bactérie balaa moo pare beneen bactérie dugg xale bi. de telle hmm. sorte que traitement antibiotique associé ngay def. mu metti trop ci xale yi ndax ay piqûre la non seulement metti ci poche parents yi parce que xaalis bu bëri la. donc xale yi ñoom ci boppam dañuy euh, nekk ay xale yu vulnérable mais au-delà de ça psychologiquement aussi loolu dina leen yàqal lu bëri euh, tey jii nii yow xale yi nga yor est-ce que déjà ñu ngi dem école euh, ñu ngi am benn vie sociale walla yooyu. xale yi ñu ci bëri dañuy dem école. Mm-hmm. c'est vrai que man loolu laay def ci seen bopp yaay yi. Mm-hmm. parce que tout le temps damay waxtaan ak ñoom bu leen téye xale yi ci kër yi. faj leen leen ngeen yóbbu leen école parce que ñun yaay yi on n'est pas éternel. Mhm. ñu ngi di rey suñu bopp pour faj suñuy doom mais suñ fi nekkatul ñoom kan moo leen di jël en charge. Mhm. su fekkee ni jànguñu tekkiwuñu ils auront du mal à survivre dans cette société. parce que dëkk bi kenn dimbaliwul kenn. Mhm. moo tax man li yor nii il est en train de faire le bac cette année. mayuma ko dara. il va à l'école quand malade. ses médicaments dama koy def ci biir saagam. su xamee nag ñu woo ma a jël si ko dem faj ko delloo ko école. Mhm. parce que loolu laa ko wax nee naa ko boo jàngul tekki woo. Mhm. ak sa maladie bi tu vas beaucoup souffrir dans la vie. Mhm. psychologiquement des fois. ils sont ci li ma yor parce que je suis pas dans les autres maisons pour xool xale yi ni ñuy def. dëgg la mais mmh. je sais que xale bi nga xamante ni mi ngi def insuffisance rénale nii. Euh, euh, xam naa ni psychologiquement daf ko affecté ba mu téye euh, wax bi. toog na cinq jours yoo xam ne mënul wax yaayam looloo ko gënoon perturbé. Mhm. xale bi du wax dara. bi ko commencé traité nii ba jox ko ay garab ci la commencé di wax tuuti mais man ci li ma yor il s'énerve trop vite. Mhm. des fois dafay énervé toj lépp ci kër gi. parce que psychologiquement il est affecté. parce que mag na xam na xàmmee na xamal nañ ko li mu am. mu ngi am ñaataat actuellement. am na dix huit ans. dix huit ans donc médecin yi xamal nañ ko liñ ko mm. liñ bu fekkee ne xale la sax du garaaw parce que danaan damaa feebar ñu may toppatoo mais boo demee ba mag. ba rendre compte xam yenn yi nga ci nga ci. ba rendre compte ci li la dal. Mm-hmm. loolu affaire psychologique bu garaaw la. Mm-hmm. de telle sorte que je remercie le professeur Serigne Mor Mbaye au passage. Mm-hmm. il m'a promis de me faire une formation boo xamante ni. appui psycho euh, psychosocial lay doon. Mhm, pour xale yi donc ça pour xale yeeg seen parents yi. Mhm, mhm. parce que autant xale yi ils sont affectés. yi ñoo gën a affecté. parce que nga yore sa doom gis ko mu feebar. nga yore sa doom gis ko mi ngi dee ci lan hôpital. nga yore sa doom gis ni nit ñi ñu ngi lay daw. yore sa doom gis ni ñu bëri seen parent yi seen waajur bu góor dafa abandonné. yaay beeg doom bi. nga yore sa doom gis ni amoo loo ko mën a faje loolu xamuñu sax lan lay def. moo tax man des fois di que yenn situation yi c'est pas pour prôner l'infanticide mhm. mais gis nga situation psychologique yooyu mhm. day dem ba indi des problèmes d'infanticide au niveau des des foyers ci maman yoo xamante ni dañoo jur genre bébé yi mhm. loolu la donc pour te dire que c'est tellement grave Métil. psychologiquement voilà ba tey rek mbokk yi may fàttali ni ñu ngi euh, dalal tey euh, madame xewee euh, mbay di njiital association Prune Belly Sénégal dégg ngeen ko mu ngi expliquer feebar boobu nga xam ne moom mooy Prune Belly di dal tout temps ki mu nekk lu metti te je pense que ne tey jii képp koo xamante ne am nga touti sa poche war nga mën a jàpp ci lutte bi ndax tey bëri na ci réew bi ñoo xamante ne macha allah ñu ngi ñu ngi suturlu bu ko defee ñu mën a dolli ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi le euh, tout temps kii le euh, jàppale parent yi aussi parce que euh, dégg ngeen ni ko madame mbay waxee métti na torop te je pense que ni xale yi ñoom ñooy l'avenir donc de ce pays donc foog ñu jàppale leen. pour revenir un peu ci waxtaan bi madame mbay tey mhm. jii nii li nga xam ne moom mooy Covid bi déjà loolu c'est un autre problème su weesoo mhm. peut-être toppatoo bi mais Covid bi aussi. feebar la te ñëpp la mën a dal tey est-ce que xale yi aussi ñu ngi am benn protection bi tamit aussi. ñoo gën a vulnérable te mhm. encore. Mhm. parce que ñoom booy seet affaire bi dafay affecter seen poumon yi des fois. Mhm. ils ont des problèmes respiratoires d'emblée. bu ci Covid bi doolee woo parce que booy seet xale yooyu dañuy nekk xale yoo xam ne ni soj da leen di yomb surtout li ma yore. ñu ngi soj tout temps. de telle sorte que man bi Covid bi commencé rek en tant que présidente de l'association dama jël samay responsabilité ma def une communication vidéo pour m'adresser aux parents pour leur dire de laisser les enfants à la maison di jokkoo ak seen médecin yi au téléphone mhm. di respecter les mesures barrières di leen di leen di leen toppatoo di leen raxas seen loxo yi di leen kii mais tamit ñu bañ a négliger maladie j'ai def na benn vidéo boo xam ne c'était la sensibilisation mm mais ñoom ñoo gën a vulnérable ci Covid bi. Mhm. ñoom ñoo gën a vulnérable. Mmh. Mmh. voilà mu nekk lu lu lu lu quand même assez euh, lu lu metti daal parce que euh, yaa ngi koy wax léegi psychologiquement parents yi dañuy abattre te wax nga aussi beneen pan bu am solo sànq ki say wax abandon yi ak stigmatisation bi ak tamit euh, daw bi nga xam ne des fois société bi aussi dañ koy daw ñi nga xam ne dañu dañu feebar. waa soci suñu société africaine moo mel noonu. Mhm. booy seet ci yeneen société yi nasaraan yi ñoom boo feebaree ci lañ lay gën a jege. Mhm. ñu ngi raay say loxo ñu ngi raay sa bopp ñu ngi lay toppatoo ñu ngi lay wax wax bu neex pour que nga euh, mu diminuer au moins cinquante pour cent de de ta mhm. mais fii il suffit que feebar nga rek ñu ngi lay daw ñu ngi lay waxtaane ñu ngi lay moytu. ñu ngi naan kii leeg mu dee. Mhm. alors que feebar jotewul ak dara ak dee. Mhm. peut-être que aussi dañoo amul yaakaar ci xale yi ni dinañu dund mais feebar jotewul ak dara ak dee. Mhm. parce que man pour la petite histoire sama doom bu mu juddoo am na ñu bëri ñoo xamante ni jooy nañu ba sonn ci feebaram. waaye ñu nañu ça fait dix ans. kon nga war a xam ni. feebar jotewul ak dara ak dee jotewul. que vraiment xale bu nekk mérité na chance am. xale bu nekk mérité na toute notre attention parce que xale yëpp a yem. Mhm. kenn xamul kan mooy jariñ ëllëg nit ñi. Mhm. donc xëy na peut-être xale bi ñuy stigmatiser ndax dafa feebar xale bi ñuy stigmatiser ndax dafa am prune belly yàlla def na ci xam-xam boo xamante ni mën na ci moom mën na sauver askan. Mhm. amaana xale boobu mën na nekk peut-être chercheur tey. Mhm. découvrir loo xamante ni mën na jariñ askan bi yëpp. Mhm, mhm. par exemple découvrir euh, le remède au Covid. dëggantaan découvrir kii xa kenn xamul kenn xamul. yàlla li mu def ci dëxañ ci xa nit ku nekk. moom rek a ko xam. peut-être yaa ngi sàggane nit koo xamante ni peut-être moom mooy doon sa sauveur ëllëg. donc ñëpp la ñu war a yemale muy Prune Belly bi muy xale yi nga xam ne ay autistes lañu. j'en profit pour les saluer. muy xale yi nga xamante ni dañoo am trisomie 21. ñoom mm-hmm. ñëpp il mérite toute notre attention. Mm-hmm. parce que xale xale la te day màgg te kenn xamul kan mooy jariñ kan. Mm-hmm. te stigmatisation moom dafa nekk loo xam ne c'est une plaie sociale ndax ba ci Covid bi da ngay gis ñoo xamante ni euh, ñoom ku am Covid moom koñ boobu sax dootuñ fa aw donc mu mel ni daal euh, loo xam ne plaie la boo xam ne dañ ko war a faj également ndax loolu ci boppam feebax la ci société bi. li ci gën a graaw mooy mooy yokk cas communautaire yi. absolument parce mm-hmm. que booy seet koo xamante ni yow psychologiquement tu n'es pas fort. nga am Covid nga ragal ñu stigmatiser la daw sa njaboot. Mhm. da ngay toog ci kër gi doo dem déclarer sa bopp hôpital nga nekk cas grave nga dee. Mhm. après nga wàll sa njaboot sa njaboot mu ngi ci biir kër gi. rus nañ koo wax. ñu mhm. génn dem wàll keneen. et c'est ça ki infect tout un pays. c'est donc mmh. stigmatisation nit ñi bu ñu xamoon ni ñu ni mu grawee duñ ko duñ ko moytu. Mm-hmm. dinañ ko moytu. Mm-hmm. parce que daw ku wér di vraiment c'est pas bien. Mm-hmm. dafay gën a yokk li ko metti comme disait disait notre père voilà. ba tey rek ñu wëyandi euh, li nga xam ne léegi moom mooy wàllu prise en charge bi yéen actuellement euh, madame Mbaye yaa ngi koy wax euh, ndimbali yi ñëwatul. nu ngeen di def actuellement pour euh, mën a subvenir ci yenn euh, prise en charge xale yi. Euh, xanaa di jàppalante. Mhm. bu maladie amee. bu kenn amee soin wala mu war a dem hôpital d'urgence dañoo am benn page boo xam dañ ko créer ci Facebook bi. Mhm. dañuy yónnee message appel à solidarité. suñu tel xale lii moo koy metti na ci ñëpp jàpp. Mhm. ku nekk yónnee mille francs ñi yónnee 500 ñu dajale. Mhm. bu matee dara ñu fopp ko yónnee noonu la ñuy demee je aussi les bonnes volontés ñi nga xamante ni vraiment chaque fois su waxee appel à solidarité dañuy ñëw ñu ñu ñu ñu def solidarité. Mhm. ba euh, la semaine passée moo ci mujj. hôpital Albert waaye fi xale yu hospitalisé dañu amoon manque de ventilateur. Mhm. ak tàngaay bi feebar nekk ci tàngaay yooyu di la rey nga am manque de ventilateur. mais bi ma defee appel à solidarité ñëpp a wuyu dajale nañu six ventilateurs yóbbu ko ci salle d'hospitalisation yi pour ñu tegal ko xale yi. Mm-hmm. loo xamante ni vraiment ça me rend fière. Mm-hmm. parce que man saa yu ma xëyee rek damay seet lan mooy sama. lan mooy sama euh, jëfin ci sama askan mm-hmm. lan laa mën a apporter sama askan donc loolu la ça veut dire que ñu bëri ñu ngi bëgg nga wax leen jàpp ci pour ñu jàppale pour ñu jàpp ci Mm-hmm. ñun ci loolu rek la ñuy woy parce que sincèrement li ñu yoroon ci kees bi yëpp jeex na. Mm-hmm. opéré nañu ay xale daaw. j'en profite pour saluer professeurs yi nga xamante ni yëpp ñoo may jàppale bu maladie amee bu xale feebaree ñu woo ma ma dem fay pour ñu opérer ko vraiment. Mm. est-ce que opération bi aussi doon na lu lu jàppandi loo xam ne daal xale yi dinañ ci mën a jot. Euh, ci structures yi de santé yi notamment Albert Roy ak yooyu ndax comme ñoom ñooy faj xale yi mais aussi euh, ci côté njëg bi également. ñu ngi continuer di opérer xale yi mais xanaa urgence yi rek. Mhm. urgence yi la ñuy opérer parce que booy seet ñi nga xam ne dañ leen a joxoon rendez-vous ñu defoon visite pré anesthésie ba tey. Mhm. ñu ngi toog di xaar pour ñu woo leen opérer leen. Mhm. kenn woowu leen. je cherche maa yi jéem a joindre médecin yi ma am foofu pour laaj leen lu tax woowaguñu xale yi opéré wu leen. opéré leen mais sincèrement euh, euh, jotuma ci kenn njëg gi njëg gu metti parce que booy seet xale yi yemuñu ci benn opération mm-hmm. parce que liñ leen di njëkk a defal mooy wàcce seen testicule yi mm-hmm. loolu buñ ko deful duñu am chance su nekk euh, papa wala am doom mm-hmm. loolu mooy opération bi gën a essentielle loolu xale bi bala moo am neuf mois war nga ko ko defal sinon testicule yi day des ci biir bi mën na fa des ba nécrose nekk cancer ci biir bi. Hmm? de telle sorte que il faut ñu seet loolu wàcce ko ndax loolu màgg xale bi mën a am doom. chaque fois bu ko Gabriel waxee ma jooy ba sonn parce que nee na sur neuf enfants kenn rek lañ ci xayma ni peut dina mën a am doom chance bu minime. Hmm. ça veut dire que ñoom ñooñu ñëpp vraiment amuñu chance sax gis seen doom bay gis seen sët. dafay metti parce que ñu leen defalee loolu ba pare war nañu wàññi seen visi bi. pour que ñu bañ a defati infection urinaire buñ ko defee ba pare seen uretère yi nga xam ne mbuus yi relier vesi bi ak rein bi tamit dafay dilaté. Mhm. il faut ñu dagg taqale pour que tour ndox yi bañ a desati foofu di fa stagné loolu mhm. ba xale yi di defati infection urinaire bu loolu weesoo seen biir bi ni mu amulee muscle il faut ñu wut luñ ci taf ci biir pour que biir bi ni mu nekkee euh, mbuus noonu. parce que am dëgër laay. bu ñu lekkee ba suur sax biir bi gonflé. Hmm. bu ñu toogee toute la journée demuñu tuur ndox biir bi gonflé. de telle sorte que tout le temps seen biir yi ñu ngi gonflé et pour te dire pour la stigmatisation yenn xale yi dañuy dem di fo ak seen moroom yi dañ leen di ñaawal dañ leen di wax seen biir yi de telle sorte que ils sont toujours affectés psychologiquement. c'est sûr c'est sûr. voilà. Hmm. Mhm. Euh, dana lu lu lu doy wax euh, léegi euh, est-ce que parce que yaa koy wax sànq am ngeen ay partenaires est-ce que peut-être ci ci àdduna bi gis ngeen ñoo xam ne am nañoon prime belli ñu wër est-ce que déjà feebar buy wër la. du feebar buy wër. Mhm. feebar la boo xamante ni rek da ngay seet lu la indil ci jafe-jafe rek nga regle ko continuer. mais mm. États-Unis gis naa fa ay prune belli yoo xam ne am nañu soixante dix ans quatre vingt ans. Mm-hmm. am na ci sax ñu am doom. Mm-hmm. ça veut dire que foofu sàggane wuñ leen. Mm-hmm. dañoo def benn genre euh, réseau bu mag boo xamante ni ñi am prune belli la ci États-Unis yëpp ci état yëpp. annuellement dañuy regroupé wu ci benn état def fa seen benn congrès def plaidoyer def fundraising ñu may leen xaalis bu bëri ñu faj seeni doom. Mm-hmm. mais ñun loolu amuñu ko fii am na ay télé yu ma fi invité woon promettroon ma ni dinañ ma jàppale ma def téléthon mais ñooñu su ma leen woowatee sax léegi duñ ma décroché mm-hmm. am na sama benn xale boo xamante ni yóbbu nañ ko ci benn télé mm-hmm. defal ko émission xale bi ñaxaar la dëkk euh, euh, maamam moo ko yóbboon ñu defal ko émission wax ni dinañ ko jàppale ba wutloo ko proforma pour opérer ko proforma bi yónnee nañ ma ko fan yële passé may wut kan moo ma ci mën a jàppale pour ñu opérer ko parce que moom amagul benn opération moom xale bi. Mhm. voilà mi ngi ñaaxaar am na léegi dix ans chaque fois maa ngi jokkook euh, maamam ba ci tabaski bi parce que dañ dafa am benn partenaire boo xam ne dafa ñu mayoon cent mille francs mhm. pour ñu jox ko ndimbal xale yi nga xamante ni war nañ leen a jëndal yére war nañoo feetu. Mm-hmm. ci laa leen woowoon ku nekk ma jox la montant mm-hmm. maa ngi jokkoog ñoom mais noonu la je crois que des fois yenn organe de presse yi mm-hmm. mooy loolu daal dañ lay promettre nga ci daw femme bi nee na ma maamu xale bi nee na ma léegi bu woowee ñi ko promettroon ni ko dinañu toppatoo sa doom sax mm. dañ koy raccrocher wala duñ ko jël mm. nga xam ni loolu doy na waar doy na waar doy na waar euh, am na galaa boo xam ne aussi euh, da ngeen ko doon faral di amal annuellement je pense que su ma juumul mois d' avril nga ma waxoon bële passé voilà mais xam naa ren moom mm, amul moom ndax ak problème bu Covid beeg yooyu. daaw mois de juillet lañ ko defoon. d' accord. Mhm. voilà parce que dafa tombé woon je crois korité tabaski diggante boobu dafa xatoon. Mhm. donc ñu programmé ko en fin de compte ci mois de juillet. Mmh. biñ ko defee vraiment y des artistes am na ay artistes comme Biddéew bu bees ñu ñëwoon. Mhm. soutenir ñu. ak euh, le jeune JP ñoom ñëpp ñu ñëw soutenir ñu parce que les bi les de vidéo bu bees bi ma leen depuis bi ma leen exposé problème mu xale yi. Mm-hmm. dañuy ñi ñoom ils en font une une affaire personnelle. Mm-hmm. ñoom ñooy ñëw ñoom ñooy ñëw def plaidoyer pour que ñu kii mais ren fu ñuy jaar pour def. Mm-hmm. gala amuñu ko kay moom lépp jaxasoo parce que tout dañ doon def suñu defee gala def euh, euh, spot publicitaire. maa ngi remercier sa confrère bi Didier Boubs mhm. à chaque fois daf may may le spot mhm. gratuitement mhm. di remercier aussi les gens de TFM parce que dañ ma koy tegal gratuitement ku gërëmul nit doo gërëm yàlla dëgg la absolument suñu spot bi su jàllee tout le temps da ngay gis ni am na ñoo xamante ni duñu ay milliardaires sax mais ci li ñu yor lu ndaw da ngay gis ñu wooma ni dañuy contribuer mais ren defuñu dara ñu ngi nii les caisses sont Mm-hmm. amatuñu xaalis pour faj xale yi ñaanaatu nañu ba nurootuñu ay nit parce que chaque fois man maa ngi bind appel à solidarité appel à solidarité mm-hmm. xam nga te loolu dafa metti te xam nga nit kuy joxe tout le temps bu yàggee dafay sonn yàlla rek mooy joxe te du sonn. te sonn dëgg la loolu la dëgg la. Mm-hmm. na wax aussi euh, am na euh, corridor boo xam ne am na aussi ndimbal boo xam ne jotoon ngeen ci. Euh, ci mhm. mouvement des entreprises du Sénégal MEDES. oui ñu invité woon leen ci d'ailleurs sax à la suite de ça man ci laa leen invité woon. Mhm. passage. Mhm. Euh, euh, le président Mbagnick Diop je le salue au passage. Mm -hmm. bu MEDES. parce qu'il m'a montré daf ma wane ci bëtu àdduna yëpp ak bëtu Sénégal. parce que ñu bëri ñu xamul woon Prune ci la ñu doxee xam prune belly mhm, man mi à travers foofu la pour la petite histoire bi ma demee ci corridor bi. Mhm. dama fa fekk sama médecin traitant ki may fajal euh, sama dentiste. Mhm. docteur Diatta. bu mu gisee maa ngi ci corridor bi mu ne kii sama patiente la. ndeysaan après euh, moom ak soxnaam dañoo def tout ba ma am euh, une donation au niveau de la primature. ñu may xale yi xaalis bu takku ci lañu profité woon opéré suñu xale yu bëri ba ci Ziguinchor. Mhm. donc euh, euh, Mbagnick mënuma ko fay. Mhm. xanaa gëj gise bi rek mais vraiment fu ma toog damay damay je salue son son bon cœur. Mhm. nit ku baax la moo tax. bu yàlla defoon Sénégal am ñu mel ni Mbagnick fukk mhm, mhm. kon léegi Sénégal développé mhm, parce que quand depuis bu ma ko bindee leetre wax ko explo expliqué ko ko dafa jël affaire bi à cœur dëgg la invité ma King Fahd Palace ci mouvement des entreprises ñëpp ñëw toog mu ne ma expliquer j'ai expliqué ils étaient tous en larmes donc Mbagnick mënuma ko fay vraiment mu nekk lu am solo donc mhm. euh, mu nekk euh, corridor chaque fois dañuy def ñoom genre euh, action yooyu pour vraiment mhm. Euh, investir ci social bi te je pense que ne social bi moom euh, euh, dafa nekk responsabilité des entreprises daf ci bokk donc entreprise yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñoom ñëpp bu ñu jëloon loolu en compte di jàppale ñi nga xam ne dañoo amee ay jafe-jafe ak feebar yi je pense que lu bëri dina dina dina wàññeeku. am na ñu bëri ñu mhm. bëri ñoo xamante ni depuis corridor bi. Mhm. BHS je remercie monsieur Bokassi. Mhm. y a aussi les les gens de chez GF Bourse. ñoom tam depuis corridor bi. vraiment entreprise yi nekkoon foofu ci mouvement des entreprises yëpp bu ma defee gala. Mhm. dinañ ma woo au moins jox ma benn montant ak le ministre euh, Abdou Karim Sall. Mhm. il a été le premier. à mm -hmm. faire ça parce que depuis mu gis ma ci corridor bi rek il a demandé du temps qu'il était à la mhm. dafa mm -hmm. demander pour ñu jox ma benn donation mm -hmm. on m'a donné une donation consistante et je le remercie parce que responsabilité sociétale de l'entreprise bu ko entreprise yëpp doon doxal. Mhm. du am benn malade boo xamante ni rek dina ñàkk faju parce que quoi qu'on dise ils ont cette responsabilité. ku nekk tu es responsable de ton prochain. Mhm. man je suis responsable de toi Ouleye Mato. Mhm. parce que yàlla du wàcc di faj kenn. dëgg la yàlla du wàcc di jox kenn lekk yàlla du wàcc di jox kenn naan. da koy jaarale ça veut dire que koy mm-hmm. jaarale ci nit. Mm-hmm. dafay responsabiliser nit ku nekk nga responsable par rapport ak être humain bi nga nekkal. Mm-hmm. loolu mooy àdduna. voilà ba tey rek yéen a ngi déglu seen émission SOS santé li ci des euh, euh, bareetul euh, tey jii nii daan ngeen dem aussi ci région yeeg yooyu di fa amal peut-être ay activités te loolu aussi loolu yëpp fu mu ni nii c'est à l'arrêt aussi. dakk na. Mhm. ñu dernière activité ñu ngi ko demoon defi à Rufisque. Mhm. avec le docteur de la Sénélec docteur Makhtar Ly. Mhm. parce que moom mooy suñu conseiller moom la ñu àndaloon. parce que dafa am ay américains yu fi woon ils nous ont donné des médicaments ay médicaments yoo xamante ni ay suppléments alimentaires la. Mhm. ak ay médicaments pour les diabétiques. on est allé rencontrer les diabétiques surtout enfants. Mhm. de Rufisque. parce que xale yi ñu ci bëri am nañu diabète dañuy yaakaar ni diabète mag rek lay dal mais. Mhm. y a des enfants diabétiques. na ci. dañu dem rencontrer association des diabétiques ñu may leen garab yi. avec le docteur Thiam de du poste de santé Géej on a fait une belle vraiment rencontre là-bas waxtaan nouer partenariat ni dinañ leen jàppale ni nii on avait promis dem seeti xale yi nga xamante ni les enfants albinos mhm. du village des albinos foofu la ñu programmé woon cette année pour dem ak docteur li mhm. mais covid bi moo tax mënuñu fa dem parce que foofu tam bëggoon nañ fa dem jokkook ñoom vraiment jàppale leen def sensibilisation pour que xale boo xamante ni bien que am nga euh, euh, nekk nga albinisme ñu veye ci nga bañ boo amee prune belly aussi. Mhm. associé ñaar yi ñu xam nan lañ lay traité donc plaidoyer boobu la ñu naroon def ci village des albinos mais Covid bi moo ko yàq macha allah. Mhm. Mhm. Covid bi moom lam yàq dafa dafa bëri lool. <laughs> bëri lool ba tey rek euh, ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Xewe Mbaye di njiital association prune belly léegi tey ji ci côté xale yi est-ce que ñoom dinañu faral di maanaam seen côté alimentation daal ñàkk appétit beek yooyu est-ce que yooyu du leen dal. ñàkk appétit bi boo ko gisee rek xamal ni dañoo constipé. Mhm. parce que loolu la fàttee wax ci seen anomalie yi. ils sont souvent sujets à des constipations dañuy constipé. Mhm. bu ñu nekkee xale. ay suppositoire glycérine moom mooy seen médicament. Mhm. parce que soo leen ko defalul wala nga defal leen jus de fruit. Mhm. du ñu mën a dem toilette correctement. Mhm. parce que xam nga seen euh, euh, intestin yi dañoo faible. de telle sorte que difficulté bi ngay am pour dem toilette ñoom du leen ci fekk. suñu poussé demul dañuy dem toogaat jàpp seen jàmbur. de telle sorte que xam nga nit bu constipé du am appétit. parce que day fekk biir bi fees na te libéré wul li ci bi. foo leen fekk nag nit ñu tuuti la ñuy doon parce que mhm. du ñu lekk mhm. infection yi sonal na leen constipation sonal na leen de tell sorte que seen lekk demewul noonu ce sont des gens anorexiques mhm. ils sont toujours en sous-poids poids bi nga xam ne moom la ñu war a am normalement ak seen âge poids boobu dañuy nekk ci suuf loolu mooy seen difficulté ndax ñàkk lekk beeg yooyu ñàkk lekk bi te li ñuy lekk c'est pas adéquat parce que yenn parent yi amuñu moyen de leur faire un régime alimentaire boo amee moyen di nga defal sa doom régime alimentaire boo xamante ni moo adéquat ak li koy ak feebaram mais boo amul yow ci sa bopp loo toppatoo sa njaboot. doo mën a jël benn xale rek nga favoriser ko ci famille. da ngay togg li ngay togg rek xale bi bu ko mënee lekk sebon bon bu ko mënul lekk aussi c'est bon tel telle mm-hmm. sorte mooy loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi wax ci njalbeen ci sa wax euh, ci wàllu paludisme. Mhm. nga wax ni euh, yow da ko amoon bi nga euh, nekkee en état de grossesse. Mhm. te nga ne aussi jot nga ay témoignages yu bëri yoo xam ne ci euh, ñi nga ay femmes yi ngay jànkonte que ñoom tam ñu ne. dañoo mhm. amoon sibiru. ba tax na mm, nga def relation bi. ci ci ci affaire prune belly bi. Mm. loolu la moo tax ma def relation bi. parce que je damay fàttali ni man bi ma amee bi ma bi ma nekkee en état de grossesse. dama doon liggéey ci benn ONG boo xam ne sama liggéey yëpp dem ci terrain bi la woon. Mhm. Euh, pour prôner def le plaidoyer pour les droits des enfants ONG bi mi ngi tudd Plan Sénégal. Mhm. de telle sorte que fu nekk lañ ma daan yabal ci Sénégal dama doon dem ci région yëpp. des fois dama doon dem def ay euh, euh, formation pour que xale yi defal seen bopp émission avec la RTS. Mhm. du temps de rajo gune yi man maa nekkoon la formatrice à rajo gune yi. d'accord de telle sorte que c'est des émissions yoo xam ne émission droit de l'enfant la woon. Mhm. des fois ma dem ci village guddee fa xam village yi ni mu demee yooyu matt ma ba ma sonn. Mhm. suma ma ñibbisee bon ci laa jëlee woon pali bu metti boobu. mais pali yu defe naa ni ñu ci bëri dañu ni bu ñu ëmbee. palu moo leen su moo leen sono sonaloon ça veut dire que du feebar boo xam ne war nañ ko mën a négliger parce que du tout voilà li muy yàq dafa bëri mm-hmm. c'est ça mm, donc sensibilisation war nañ ko euh, yokk aussi ci euh, jigéen ñi lokk lo war na surtout mm-hmm. d'accord gis naa ni euh, jamono yi ñu nekk ni waa PNLP ñu ngi def sensibilisation ci prévention mm-hmm. contre le palu ci région yëpp Mhm. c'est très important. c'est feebar feebar bu ñu war a mën a lijjanti. paludisme moom warul ñoo jóg ci di def plaidoyer. Mhm. parce que paludisme neuropalu paludisme intestinal yooyu yëpp li muy yàq ci nit dafa bëri. Mhm. voilà. kon daal euh, nañu wax jigéen ñi profité ci antenne bi wax jigéen ñi ñu gën a farlu. ci visite prénatale yi ci yi ci di takk sanke. di nelaw ci moustiquaire ñoom ak seen njaboot chaque jour de l'année mhm. voilà parce que man palu man dama ko ragal mhm. parce que man dama jàpp ni man li ma nekkee nii palu moo ma ko teg moo tax dama ragal des mhm. euh, est-ce que euh, aspect boobu aussi waxtaan ngeen ci ak euh, médecin yi nga xam ne da ngeen di jege ñoom tam ñu wax la ci sax seen xalaat mës naa ci waxtaan ak docteur Gabriel Ngom. Mhm. mais ba tey moom daal il est vraiment sceptique par rapport à ça. Mhm. parce que comme que feebar la boo xam ne xamaguñu lan moo koy joxe. te en tant scientifique bëggul avancé ci yenn. voilà mënul tëb rek d'emblée nii euh, euh, kii moo koy joxe. Mhm. moo tax ci lettre bi ma bind président Macky Sall suggéré naa que ñu def des études euh, des recherches. pour voir exactement. yenn maladie yi lan moo koy joxe comme ça à titre préventif ñu mën a yëngatu ba nga xam ni kenn dootul am genre feebar yooyu. Mhm. Mhm. voilà euh, daanaka yegsi nañ ci njeexitalu émission bi euh, madame mbay mhm. donc euh, lan nga ñuy wax comme projet boo xam ne vraiment am ngeen ko. ci loo xam ne bëgg ngeen ko def euh, moo mm. ngeen peut-être euh, harmoniser ko ak période Covid bi parce que Covid mm. moom fu mu toll nii il faut calculer avec faire avec mm. pré prévoir avec parce que mm-hmm. xamaguñu kañ lay dem donc mm-hmm. lan mooy sa peut-être projet en tant que association Prune bi lan mooy seen projet actuellement bi ngeen am projet bi ñu am mooy comme ni ma ko waxee rek appui psychosocial bi ñu ni dañ koy def ak professeur Serigne Mor mbay mm-hmm. ak une formation en puéricultrice. Mm, maanaam. maanaam ni ñuy toppatoo xale. Mm. parce que booy seet xale yu bari yuy loru. c'est parce que seen yaay yi xamuñu nu ñu leen di gérer. et dafa baax yaay bi nga xamante ni dafa am xale bu feebar. nga mën ko renforcer. defal ko renforcement euh, euh comment dirais-je euh, euh, renforcement boo xamante ni dina xam ni muy gérer xale bi. Mm-hmm. parce que man tout le temps damay naan maman yi nga xam ni seen doom yi dafa am prune belly bàyyi leen couche yi ngeen di yendal ci xale yi. parce que xale boo xamante ni da nga ko jël takkal ko couche surtout les couche jetables. jetables yi. Hmm. voilà xale bi day yendoog moom ba xaaju journée bi de telle sorte que couche bi fees na dell mi ngi mi ngi mi ngi am ay bactéries ci biir. Hmm. loolu dafay jox infection xale yi de telle sorte que formation boobu. il faut ñu defal ko xale yi. Mm-hmm. je vais discuter naa ci ak professeur Gabriel Ngom nee naa ko su ma mënee jàppale ñu am ay euh, personnes ressources yoo xamante ni dinañ ñu defal une formation ça veut dire que du ñu regrouper maman yëpp mais semaine bu nekk ñu jël deux mamans. Mm-hmm. Euh, former leen expliquer leen seen doom ni ngeen ko war a gérer de telle sorte que dootuñu leen bàyyi ci kër yi ba ñuy def infection urinaire infection urinaire yi di leen jox septicémie ba ñuy lor wala ñuy am insuffisance rénale wala seen rein yi di yàqu. Mm-hmm. ak formation psychosociale bi nga xamante ni professeur Serigne Mor Mbaye ma la promis pour que jox ndëgër laay famille. Mm-hmm. nga xamante ni même bu ñu dugg nekkee ci foyer monoparental boo xamante ni ku góor ki dafa daw ay responsabilités am ñoom dinañu toog jéngu ko. Mm-hmm. dinañu am ndëgër laay boo xamante ni ils sont psychologiquement foor ba nga xam ne duñu abandonné xale yi di leen dem sànni ci àll parce que dar lañu. Mm-hmm. woo nañ ma Albert waaye benn xale boo xam ne ci àll lañ ko sànni. Mm-hmm. benn waay bu doon def training moo ko for yóbbu ko hôpital. dama ci jooy ba sonn. donc formation buñ ko amee. dinañu xam naka la ñuy gérer seen bopp. xam naka la ñuy gérer seen doom ba dara du leen ébranler ba mu leen di jaral rey wala sànni. pour le moment loolu moom mooy doon suñu ay projet ak xale yi nga xamante ni dañ leen a war a opérer ñoom ñëpp balaa école a ubbi. Mhm. ku ci war a am intervention ñu defal la sa intervention. koo xamante ni contrôle nga war a am ñu defal la sa contrôle. ñu ngi euh, prévoir aussi tabax benn centre boo xamante ni day accueillir les mamans abandonnées ak seen doom. Mhm. nga xam ne dinga leen mën a renforcer. buñ leen dàqee ci seeni kër. wala ñu abandonné leen dinañ xam fan la ñuy jublu wala bu ñu amee prune belly rek dinañ xam fan la ñuy jublu pour laajte man nan laa war a mën a comporté woo ak sama doom. Mhm. nan laa war a mën a def ba jàppale sama doom ba mu màgg ci jàmm. loolu pour le moment moom mooy suñu ay mébét. yàlla na ko yàlla mottali. amiin. Mhm. Mhm. ñu may la rek euh, nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi. di la remercier. parce que je me souviens jour bi ma njëkkee def émission ak yow tu étais tellement bouleversé que. <laughs> <laughs> <laughs> la deuxième fois. Mhm. nga invité ma ça dire que euh, tu portes beaucoup d'intérêt pour les enfants Prune Belly. Mhm. vraiment di remercier kilifay rajo bi Rewmi FM. Mhm. di leen ñaanal vraiment ngeen yokk ba yëg ko. di ñaanal ñëpp ñi nga xamante aussi. ñi ngi def seen doole ak seen euh, euh, euh, am-am ci Prune Belly mm-hmm. ñoom tam yal na leen yàlla yokk parce que ñi ay xale lañu yoo xam ne lu ci waaye def pertoo ko. Mm-hmm. te jamono jii dañoo toll jamono joo xamante ni man je me dis que le monde touche à sa fin. doy na waar daal rien de garder des millions. na waar yoo xam ni xamoo ndax suba di nga ko lekk mu ngi tàkkar naase. dee gi dafa tàkkar naase. Mm-hmm. ma amoon sama benn nit boo xamante ni. sama càmmiñ mi ngi woon mbir présidence. Mhm, c'était le euh, comment dirais cadre libéraux yi. Mhm. Mohamed Samb. Mohamed Samb ndeysaan. Mhm. décédé c'est vrai. il a beaucoup fait pour les Primbéli. ndeysaan. Mohamed a beaucoup fait pour les Primbéli. il m'a mis en rapport avec beaucoup de gens pour ñu dimbali Primbéli. dernière promesse am bi mu ma def c'était pour les Primbéli musu ko eggale. ndeysaan. nga war a xam ne àdduna jeex na ba pare donc. denc ay milliards denc ay millions nit ñaa ngi feebar nit ñaa ngi soxla sa ndimbal nga toog ci. Mhm. loolu amul benn solo. dëgg kenn xamul kañ la. Mhm. kenn xamul nan la. li gën mooy def ci loo xamante ni. bis boo demee ci yàlla bi nga mën a gagner ay points foofu parce que le monde est déjà fini. Mhm. di woo président Macky Sall ni ko. suñu dossier mi ngi ci biir bureau mi ngi ci ay service am nañu dimbali parce que en a besoin. ñu génn ci biti loolu du suñu cër mënuñu génn takk ay brassard ak di yuuxu ak di def ay yëf parce que loolu du suñu cër mm-hmm. ñun ay yaay lañu ay éducatrice lañu mënuñu mm-hmm. nekk di def loolu waaye terewul sonn nañu torop te soxla nañu ku ñu ndimbal nañ ñu gees mm-hmm. surtout la première daam parce que yaay la comme ñun voilà loolu laa amoon comme message bu may lancé di leen mm. ñaanal jàmm. am na solo alhamdulilah. Mm. di la jaajëfal bu baax a baax encore une fois euh, madame Mbaye euh, Khewe mu nekk euh, femme mhm. bu courageuse vraiment. donc euh, di ko euh, ñaanal rek euh, yàlla gunge ko ba ci kanam kanam ci mission bi nga xam ne am na ko parce que mission la mission bu bu bu noble la te incha allah yàlla baax na yàlla ci yàlla def jàmm bu baax te itamit nit ñi aussi gën a jàppale aussi gën a dimbali parce que tamit madame mbay wax na lépp il ne sert à rien de voilà dormir sur des milliards te xamoo ndax ëllëg di nga ko jëriñoo di la jaajëfal bu baax a baax euh, madame Xewe mbay di ñaanal aussi bon rétablissement à tous les enfants atteints de Prune-Béli donc di leen wax bon courage di jaajëfal aussi auditeurs yi nga xam ne ñu ngi doon mm-hmm. déglu ci la 97.5 Rewmi FM mun ngeen suivraat émission bi ci euh, w suñu page YouTube euh, Rewmi officiel di leen jaajëfal bu baax Fatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig daje vendredi prochain beneen numéro ak beneen euh, invité ak beneen thème ci Rewmi